point ba. nee na bi mu jotee document yi la mu gis nee na waroon na ak réalité moo tax nee na ministre ba demu ca. Ah. léegi nag ñoom pour muur mbir mi. ñuy wut lay naan ministre ba dafa gunge woon Jomaay ak ma nga woon New York bi mu jógee New York ma nga Paris. kon loolu bëggaan wax. c'est-à-dire fi nii foog ñu def ci taxaw seetlu. parce boo waxalee ministre bi loo xamante ni ñun dégguñu ministre bi ci làmmiñam wax ko. waaw mais xam te communiqué jib na tukkee ci institution bi ministre bi nekk. ñu leeralal ñu mbir yi ni mu tëddee loolu tamit nag c'est des yoo xam ne diffamation mën na ci am mais man yooyu man damay bëgg tamit xaaj hmm. ñu leeral ko waaw leeral xam nga lan la que Sénégal est-ce que monsieur démentir u sax démentir du xam nga moom laa la wax na mais moom ma li may sama morom ca bàcc man nii nii tey bu ma la waxalee loo xamante nii dama ko teg ci sama bànneex bakkan ngir dénigrer la surtout ma am kàddu ko xam buggante tamit loo ko bañ bañ bañ bañ yàlla may na ko doole. am na doole gi mu yore. ci maanaam mën a fësal mën a yaatal ci wàllu communication. waaw mais kàddoom googu bu yaatoo ba ñu ne mi ah, loolu bekkaay côté boobu. waaw yaa Moussa ci laay ñëw xam nga côté boobu nga wax dafa am lu dafa am lu nekk ci kanam lu ñuy xaar. mooy lan mooy élection mhm. waaye taxaw fii di wane ne moom dafa am doole dafa am base. gis nga yooyu bi dafa yow dama gëm ne pour ñu jàpp ko la mais bu kenn jàpp nañ ko bàyyi. yow xam nga non non déglu ma rek maa ngi ñëw waaw non tamit day yomb waaw maa maa ngi ñëw foofu laa xam nga yow da ngay toog li ngay wax mais jàpp yi pa ci yi du moment yi du moment yi comprendre naa ko fi muy waxee quoi maam maam du moment bi xam la mooy moment xam nga boo ko danaan bu ñu ma bàyyi woon dinaa gagné <laughs> a su gouvernement waxee mu génnaat pour jàkkaarloog ñoom di wax xam nga da am solo mooy nañ dem ci élection yi ku nekk xam looy pesé lan la xam nga li a garaaw moom ci démentiram hmm. moom avant ministre bi di wàddi sax war na kon a jël pour jéem a utiliser loolu a voilà mooy d'état lañ koo xeex nan dem ci élection yi kenn ku nekk danga xam looy pesé suñ ci jógee hmm. danga xam kan ma a wax ak ko wërta wax gis nga buggaan sama am lu ima lu oustaz wax rek laa ciy dëggal su doon man maay moom mu am ay conseil nekku na ne waa ji mu waxee rek dafa war a wax déedéet li mu war a def mooy su jeexee maam moom su paree ci ay mbiram ba pare na dem defi business am hmm. xam na politique yàlla mayu ko ci chaque jour ngay gën a arrière te Arsenal Basir doon wax benn affaire man istawa u yow naa yow maaw fa woon naaxasul hmm. ku si démb yem ak sa tey yow da ngaa wàññeeku ndax démb maam benn sur place amut mais moom su xoolaatee boppam xam ne chaque jour mi gën a redressé wu du xoolaat façon bi muy def ku ko bëgg loolu nga koy wax. non bi yoon du yomb de. waaw du yomb. nee na législative moom ala kulli ali moom assemblée nationale moom am nañ gan. avant ñu fiy jógee lan lañ doon wax présidentielle avant ñu ñëw lan lañ wax. élection yi kenn mënu tuddee na tuddee na ko deuxième tour de. déedéet dama ne. xam nga deuxième euh, tour mu ne fexe na ba lonk ko ci. fexe na ba lonka législative yi ci deuxième tour. xam nga c'est-à-dire dama bëgg a wax gis nga àdduna. daa fabriqué boobu de toute pièce. Eh, ma la tour. xam la yàlla doon wax. élection yi kenn mënu ko fee gagné premier leen du dëkk am na loo xam ne xëy bu la nekku ci loxoy jàmm. ci loxoy yàlla ne mm. pouvoir boobu yàlla moo ko moom ñoom nag comme soob man nga wax lu nekk mais daal su ma la bëggee gàtt la daal moo ñu daaneel foofu waaw réduction des comptes beeg mm, mm, mm. ak li ci xew yëpp dama gëm bi ci yoon bi tegu gum nii wax dëgg yàlla boo seetloo démb ak tey wala bërki démb ak tey xol yi ñu ngi commencé mën a féexaat tuuti mais nag am na dossier boo xam ne moom bu ñu ko fàttee mukk mooy mbiram xale yi nga xam ne seen bakkan rot na loolu moom am na nit koo xam ne benn maire boo xam ne moom ba muy vote xam lu mu wax dafa gëm na ne moom day votal Diomaye parce que doomam boobu ñu rey gëm na ne su jomaay mi fayoo faloo moom seetu ndax dana lekk wala du naan mais loolu nañ ko àttee xolam sedd si te xolam sedd si boobu noonu kan nekkoon responsable ba sës ci ñoom ñëpp dañ leen jël indi mhm. te da ngay mhm. xam ne mbiram politique laal mm. nga takk mm. ñu woo la nga ñëw ñëwal nga leeral bu fi convoqué point de presse wala say booy di convoqué point de presse bëgg a tànkal dëkk bi coow li daal lan la. Hmm. wax nañ la a oustaz kenn woowu la man woowuñ ma. lan laa yore woon. mais yow yaa yore woon sax buñ la wooyee da ngaa war a sant yàlla gaa yi dañ ko amel ndàmpaay. waaw waaw gaa yi dañ ñu ngi noonu rek denc na ma fa ba mu neex la ñu génnaat ma. ñu ngi noonu ñoom daal man lu ma gëm daal kuñ ci woo ànd say bagage da ngay wax période bi du période wax. période yóbbu moom du suñu lañ du ci média bi dañ koy waxee mm. du ci télévision yi lañ ko fay défendre du chroniqueur yi lay défendre du kenn benn journaliste mm-hmm. yëfi daal yóbbu ko mm. justice wax Sonko mm-hmm. coow lii yëpp du ko ñëpp wax léegi coow li ñoom tamit jërul wax jërul point de presse mm. dossier la leen laaj yaa jël jëloo toogal na jëluma ko mu ngi nii te am nañ fuñ ko war a mën a leeral sax kenn da ko dénkul sax bokkul ci tuuma yi bokkul ci rapport yi. waaw ah. xam nga lu muy génnee fa sax faf wallaay maanaam day sonkoo sonkoolu fan yi quoi. jërëjëf Sonko Sonko la waxtaan wi mbokk yi di leen fàttali nañ ci xalaatal di nuyu mboolem internet yi nuy seen noonu ñu ngi commenté ñu ngi aimé ñu ngi wane seen cofeel ci émission bi macha allah euh, xaaj Bekaay Oustaz Assane. Mhm. Euh, dañuy wéyale waxtaan wi rek gannaaw am na tomb yoo xamante ni leeral nañ ko ba noppi euh, dañuy glisser rek ci législative yi comme jotoon nañ ci tàmbali ak yenn candidats yi. Mhm. waaye tamit dafa am beneen opposition boo xamante ni vraiment. ñii bokkoon nañ yeewi askan waaye tey taxawal nañ seen bloc euh, ba créer ab alliance gu ñuy wax ATEL nga xamante ni ñoom nee nañ transparence lañ bëgg ndax bokk na ci li ñuy xeex nee nañ déjà président bi joxe na date anticipée et législative yi te maanaam woowu leen ñu waxtaan ñu daal di càmbarandoo mbir yi daal euh, ba annoncé woon nañ ab marche bisu tey ji mu mel ni préfet daf leen a bañal marché bi waaye mu wax ay raison bokk na ci raison yi préfet wax nee sit site bi ngeen tànn bëgg fa amalee marché bi ci waxtu woowu vraiment duñ leen ko mën a nangul parce que dafay am lu muy gàllankoor mhm. waaye nag bu fekkee mën nañ am beneen site mhm. buñ mën a tuxalee marché ba mhm. après loolu ñu jëm ci waaye daal marché bi mu jultul ant waaye nag ñoom itamit mel na ni mbiri yi euh, euh, neexu leen nag ban jàngat lañ ci mën a def dañoo bi nekkoon loolu laa ñuy xam ordre public trouble ordre public rek la ñu fi nekk woon seen seen mbir mi waaw mënoo ko fi def mais kii nee na leen changé leen lii rek parce que fii favor kii bërëb bi loolu kay nee naa dégg. parce que ñu bëree ngi jàpp ni dañ leen a tere. waaw xam nga tere la ak wuutal beneen bërëb nga def ko fa. bokkul léeg-léeg nga programme masse ci benn terrain waa FIFA ne la favorable nañ ko toxal ci beneen terrain non. ok mais annulé wu masse bi. Mhm. voilà comme kay. Euh, kon loolu. dafa hmm. dafa ñuy jàngal lu am solo ñu dellu ci parce que balaa ma ci tàmbali. sax mais di nga def jàngat ci atel moomu ci. alliance yi. waaw ma ma PDS waaw mu raw ma. dama gis yum la Omar yum la xaw ma. waaw yum. waaw Cheikh ma nekkoon ca Macky. ah Omar yum ah waaw président groupe parlementaire. la def na fa erreur boo xam ne. dëgg-dëgg mooy fii laa ñëw sax parce que affaire législative yi la doon wax. ci problème mu décret yi joomaay bi ñu doon reculer ci. Mm-hmm. mel ni Sonko moo koy dicté quoi. waaw parce que parce que décret bi sax ñoom kuréel googu ma boolewaale ko ci attaqué nañu woon mbir mi waaye daanaka moom amuñu ci. génn yow dem woo président assemblée nationale bu njëkk ne ko sëñ bi. Mm. jékkaat leen ndax li yéen a ko fi dugaloon Sonko ñëw. waxtaan moo ci njëkk teraanga bëggeen wax ñu ko di. Hmm. woo naa ko fii na leen yéen yéen a fi dugaloon yi yéen a génnoon poste ministre bi ngeen delloo ko fi am manquement delloo leen ko Ousmane ñëw ngeen bañ a topp waxam bii naan dama koy def wala ci ay ay pic ay pic la rek ci politique bi mu bàyyi waa ji njëkk ak teraanga waa ji dem deful loolu. ñu waroon ministre bi yor wàllu finance ñoo bëgg a toog ñu dàq ko Abdou Mbow yor benn pistolet ji ci foo ba mu tàkk ci loxoom. naan damay dóor gaa ñi bal moom misaal quoi. Hmm. maanaam bu ngeen xamee suba damay ñëw pistolet tiire leen yéen ñëpp naka te xamul ne automatique la. fekk pistolet bi ci loxoom lay tàkk mais ku la bañal ñett yii boo ko bàyyee da lay fooye chaque équipe bu ñëw ci gouvernement bi mu daaneel di la kekkantoo te nag xolu xolu réew mooy parlement nga écarté leen donc nag yum jaroon na ak ñàkk nguur ñàkk ñànki ba dem fële ci diggu séeréer yi parce que tamit dama jaam droit daf maa laal sama côté yaay laal ma sax ci côté soxna gis nga dem fanaan Sonko dama bëgg dafa xeeb séeréer yi travers joomaay joomaay moo ñu yàpploo imagine wax jooju ñun maa ngi lay dénk en tant su nekkee séeréer nga séeréer daawul tooñ séeréer daawul tooñ. war nañu weesu mbirum xeet. dëgg dëgg nag dem ci joomaay ba naan Sonko moo koy def loolu muy def bu séeréer yi bu ñu yabee joomaay a tax ngir ñàkk nguur joomaay fulla gi mu am ba Sonko teg ko ci kanamu réew mi boo ko amoon Macky Sall du wax ne du dem mandat. nga nga doo génn li moo fi génnoon naan Macky Sall amul droit dem deuxième mandat jékki-jékki génnaat ci bi set wecc ana ji ko séeréeram bu muy woote Buur Siin loolu la gëmoon mu naan ku waxoon ne ku la wax ne setu Buur Siin nga xamaa dina rus xama ba muy wax ne Macky da du dem deuxième mandat ba setaat ci wecc ana ji ko séeréeram bu muy woote ba muy ànd ak Macky ci ñu doon def nii ba tey ñu génn ci tuuqi duna yi ana ji ko séeréer séeréer dafa daan bañ ko ko yàpp mais sa mboq doo ko seetaan lu mënta mel yaag jomaay bokk séeréer boobu te mënoo ko séparer ak Sonko xam nga c'est malheureux yow da nga àndoon ak tukulóor suñu gàmmu yi muy yàq ngay valider xanaa boobu moo gën a garaaw jomaay ànd ak benn doom bàjjina muy joolaa boobu naqaree séparer comprendre fi ñuy waxee yow jomaay Sonko ak jomaay doomu bàjjen lañu ci amboñ ak jàmboñ yow tukulóor nga àndaloon muy saccagé rek xanaa yow la ñu war a sax yaa trahi séeréer yi dafa ñaaw waay ñàkk nguur gi pare tàqali ko seen sago quoi toog xam a diggu caajaay mm. naan séeréer bu yaroo fii mm. Sonko di la def loolu